Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk ñu ñëwaat ak yeen ci waxtaan bu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk fan yi yépp yéen a ngi gis ñu nekk ci mois de mars di weer woo xam ni dañu wax ne dañ ko jagleel ay jigéen ngir sargal leen ci ci seenu taxawaay yooyu nag ku xam àddina ni muy doxee xam ne ay politique la yu ay nit tëral ordre mondial ak yooyu yëpp moom amul importance walla kulli xaalin bu agsee ku am sa soxna sargal ko rek waaye nga xam ni am na leneen lu lanu ci ginnaaw lu nit ñi waxoon lu tax joxuñu góor ñi bés loolu mooy wax ji li tax ñu ne xale yi ak jigéen ñi góor ñi ñoo gën a dee di góor ñee gën a dee ndax lu ñoom lépp ñoom lépp ñoom bu taxaw jotee ci yenn position yi danañu xam ni góor kenn mënu ko delloo ginnaaw loolu nag suñu borom def na ko ba noppi kon suñu leen mayee bés ñu jàppale leen ci seen bës rek amul problème ñu gis nag ci weer woowu ay nit ay gune yoo xam ne soqeeku ñu ba jaaw xottu nañ génnaguñ ko amuñu ndey amuñu baay waxuma ne dañoo de amuñu ndey amuñu baay nekk ci réseaux sociaux yi di saagante di xastante di tàncante di wuññeente mel na ñoom ñoo réew mi lëmbe ko rek lëmbe réew mi ñu toog di leen seetaan parce que réew mi amul lu mu yore sinon brigade anti-mœurs cybercriminalité jëli nañ leen bu yàgg régler seeni mbir ndax yii ñuy def ci réseaux sociaux yi dafa am norme yoo xam ne yii ci société kenn waru ko jalgati ngay à la pudeur atteinte à la pudeur ñu bàyyi leen ci loolu ñu nekk ci di def lu leen neex réew ne ay anti valeur rek doxal nga la di def suñu doom yi di gis xale bu nekk léegi yaa téléphone bu ñu demoon ba ca biir yaakaar ne lii mooy ay référence ñun fan lañ jëm dem leen ngeen laaj seen ndey yeeg seen bàyyi ñu wax leen seen bopp ku ci soqiku ñaari fan rek am ñaari dërëm ñetti dërëm fifty nag duubal li ngeen am ay million dong la am na ñu yor ay dizaine am ñu yor ay centaine am ñu yor ay milliards boo génnee réew mi nag moom ay multi multi multi ngay wax kon yéen ay pauvre ngeen seeni aajo fajoogul su dee loolu moo yëg seen bopp yi dofloo leen dellu leen ci kudd ñu roof leen ci gayet ñu leen gën a aldee nekkoon ci réew mii ñu leen gën a alde laaj leen seen ndey yeeg seen baay tey ji seen wax sëpp nañ ko ci suuf ñu leen ëppoon daraja ëppoon leen itam siiw ci réew mii rek réew mii ndakaaru googu boo leen fa duggoon rek gis fa ñoo xam ne ñii fukki at ci ginnaaw ñoo leen ëpp tuur ëpp leen daraja tey ña nga leen mu réglé parce que yàlla moom xam na nu muy régler ay biram yàlla xam na nu muy régler ay biram xanaa sax ngeen am sutura am sutura nëbb seen jëmm yi sax xanaa ni moytu làmmiñ ak bëtu nit ñi waaye weleleel weleleel weleleel fatt nit ñi mayu leen nit ñi jàmm loolu ngeen di def noonu ñàkk kilifa dong ko waral yéen da ngeen a waroon a mere seen ndey yeeg seen bàyyi parce que li ngeen di def su fekkoon ne ndey yeeg bàyyee leen yilif loolu au moins dakk na bu yàgg dakk na bu yàgg mais da ngeen a nekk ci seen bopp te àddina jay leen fi ngeen jëm baaxul ku leen ko waxul du dëgg waxu leen ay Aïssatou Diop Fall dégg naa ko moom itam mu waxante ku bon sagaru nit boo xam ne bii ñëpp xam nañu wax ko kàddu goo xam ne gii man su fekkoon ne maay boroom këru aysatu du yendu sama kër wala su dee ngoon du fa fanaan ndax boobu pat baat bu ñaaw góor bu la ñemee wolof nee na bukki bu yebee mbaxambaane ca doxin wala yi lu ngeen seq la lu ngeen seq la ñaaw xel doo ngay liggéey ñaaw kàddu ci mars ngay wax ba ñu wax la kàddu gi nga xam ne on se souviendra de pendant longtemps mi ngi ci réseaux sociaux yi ñaaw ngeenu jëf te bàyyi leen xel ni dootu leen nekkatu leen ci fudul àddina fi ngeen ne àddina la te nee ñee jeexale woon noonu ngeen di jeexale dee ngi ñëw gune day dee mag di dee mën na leen a bett tey tey tey fekk leen ci seen ñaawteef yu bon yu tilim yooyu ngeen nekk te bu ngeen guddee fan gën a dajale ay bàkkaar kon deltu leen ginnaaw ngeen xool seen diggante seen borom ngeen tuub nit mën na liggéey liggéey bu mu ko neex suturaal ko nit mën na nekk ci métier mu ko neex suturaal boppam yam ci la ñu bare ngi def li ngeen di def te teewul ñu ngi réglé Ablaye Makhtar deg na ko muy wax neena def conférence de presse mom ak catégorie ay Decroix ak Atep ak Alioune Tine catégorie yoy ak ñima tudd ak ñima tudd liñ leen wara wax moy ngeen dem guddina yeen su fekkone ay nit ngeen wala ma ne su fekkoon ne ay nit ñu texe ngeen seen desitu dund da ngeen di jéem a dem jox ko yàlla parce que yéen ñepp seen wàll jeex na amul kenn ci yéen ku paasewul âge retraite ngeen làq juróom-ñaar fukki at juróom-ñett fukki at espérance de vie ci Sénégal kon jeexal ngeen ko mooy fi nit fi ñu yaakaar ne nit bu fa àggee dee wala mu tële tële gu kenn amatul ci moom njëriñ ngeen dese tuuti katan jël ko jël war ko jël dem jox ko seen borom tuub jéggalu seeni doom màgg nañu am ngeen ni sët ñooñu lu bon bon bon teggi nañ leen courant teggi leen ndox teggi leen dépense ngeen am pension wala am lu ngeen dencoon ko su néew ngeen war koo jël jaamoo ko yàlla di ci lekk bu baax di ci faju bu baax di ci sol lu baax di dox di ci defaru bokk

vous gesticulez da ngeen di coow rek mais yéen mosu leen a am njëriñ ci réew mi à commencer par toi Abdoulaye Makhtar quand il a fallu, fallu être utile tu ne l'as pas été fa nga waroon a amal nit ñi njëriñ amoo fa woon njëriñ kon du tey seeni wax surtout bi nga xamee ne Macky Sall moom mi ngeen tax ngeen di xaw ma wax jaru jaru ko ba mu leen waree déglu sax daawu leen déglu waxuma laak bi mu demee ba mu jeex réew mi fi mu toll amna fuñu len soxla won ngeen fay waxe ba leneen mënoon a am kon su fekke ne loola wessu na waxu len tay ji ngeen pomper leer c'est parce que da ngeen ñak ñàkk jom sans vergogne ngeen waro na régler yeen yor seen bant rek tok di nek pèlerin di dox lu bax di ko wax waye mënu len ko parce que tam ngeen lu bon ba pare mënut len ko bàyyi Sidiki Kaba, bye bye, le ministre le plus, le premier ministre le plus éphémère de l'histoire du Sénégal. foofu laa yem ci loolu ma ñëw ci député yi nga xamni nak nag dégg ngeen ñu ne voté nañu benn loi amnistie bi lu jitu voté woon nañ fi dajé pour Macky Sall Hmm toogaayam ci nguur gi yéen vous êtes tout sauf des représentants du peuple li may wax nag toujours dama ko doon wax l'exception confirme la règle sama wax ji am na ñu nekk ci biir assemblée bi ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp mukk parce que xam nañ ne ñoom taxuma ñuy wax ay nit ñu yàgg ci dignité te du kenn mënu tuddindi seen dignité yàgg ci grandeur yàgg ci yiw ak njekk ñu yar leen ci ñu yàlla nattoo leen ñu tàbb ci assemblée boo xam ne ay weteñ dong fa daje kon ñooñu taxuñu may wax ñi may wax xam nañ seen bopp bés bu ñu déggee vidéo bi xam ne ñoom ñoo tax may wax vous ne méritez pas ñuy wax honorable ci yéen vous êtes tout sauf honorable l'histoire retiendra que yéen yéen a fi voté ay loi yoo xam ne yu yu ignoble loi essence ba sax biyee ko gën a bon yi ngeen di wote ngeen xam xel ne li ngeen wote dara baaxu ci est ce que am ngeen ay conscience ba war a mën a tëdd guddi di xalaat ay waay man li wote tey parce que loolu nga wote noonu bala ngaa dem jéggi siraat da nga ko layo bala ngaa génn àddina da nga ko layo dem leen laaj leen seeni mbokk wala ngeen sol seen dàlli wëri ñi fi nekkoon député at yu yàgg ci ginnaaw laaj leen fa ñu mujj am na ñoo xam ne ñii sax ñàkkul dëkk na ñoom ñooñu parce que jëf ju bon day def retour de bâton bala ngaa génn lu ñaaw la nga jëfoon ci assemblée ba te yow nga xam te lu ne defoo lu baax di lekk alalu askan bi di jëfandikoo ay avantage askan bi te taxawaay ba nga war a taxawal askan taxawuloo ko bala ngaa dee la yokk askan woowu te layoo bi mooy lan ma kenn lu bon suñu borom dana la wan ni la adina du kër yeen du ngeen dara vous ne méritez pas du respect te ku leen koy jox itam xamul lu xew dégg naa ci lu ne di député Macky Sall keroog ba mu ko waxee le peuple bi waroon a sol sandal fekk ko assemblée nationale dagg lu molom génnee ko foofa hémicycle bi

député peuple mo am lolou faw ñu taxaw commencé ko légui légui légui na ñepp yewu ci li ma wax ku ko fi defate ñu fekk la fa boko tougul genn assemblée bi abal ñu parce que ñun amuñu député makki ci bir assemblée nationale waye sénégalais yi dañoo yàgg a bay bay bayal nit ñi ñu njëbur ci suñu kaw di ñu tok ci kaw ñun ñu tok ci suuf ñu ñuy ko lolou mo fi mësa nek ñu supporter rek di dem di sangu ji di di ñu ñuy def li ñuy def loolu dafa war a jeex Macky Sall nag nee na def na amnistie am amnistie bi moom du moo ñuy teqalee ak moom déedéet amnistie nguur dana ñëwaat te askan wi am nañu seeni doléance amnisti ou pas askan woowu seeni doléance danañ ko danañ ci taxaw bu ñu yàlla ñu am ku wuuteeg yéen yaakaar naa ne ñooñu du ñu bàyyi loolu muy jàll amnistie ou pas lu ngeen mën a amnistie am na loo xam ne kenn mënu caa teg baram naan amnistie leen nii jëm ngeen a jël mbir mi nag doxañ ci seen i mbir ak seen i ak seen i waaye moom ak ñu ñooñam ay jege ñaaleem jabaram ak yépp li nga xam ne moo xew ci réew mi fukki at ak ñaar danañ ko leeral nit ñi je le crois yaakaar naa ni loolu moom du lu ñuy bàyyi muy dem fii la jabaram yor fii euh, fondation fan yee tas nañ ko fondation boobu kenn audité ko ba fii ñu toog di wax te loolu lu waroon a am la li daan xew ci fondation bi yépp ñu def ci enquête mu tok di maye ay million di maye ay milliards di yóbbu ay nit ñi faju ana yoonu ngeen Sall ci lool ana ci lool yoonam ñu réew mi dañoo yoon jox sénégalais yi ngir yalla dañu yew te xamni li lii dañ ko mom ñun dañ ko denkané nit bo denkané xana doom boko boté ba agsi ci biir kër ne leen am xolal leen ma sama doom ji ma dem marché te ñew xanaa boo wàññikoo marché soo yàkkamtiwul ya da nga fa jaar jël sa doom wala nga xool ko boo demee ba sa kër dellu si jël sa doom noonu la war a demee waaye xanaa doo ko dénkaane rek dem ne fanax tëdd bàyyi ay nit di ci def lu leen neex loolu dafa war a jeex lii ñoo ko moom ñu dikkaat dégg nga ministre bi ñëw ñu daw ak si wër ko mu sànni kii téeméer sànni kee ñeent fukk dégg nga kii toggal leen kii jox leen dox ngeen naan soli t-shirt mu mel na ay xar ngir yàlla nañ bàyyi bi façon te xam ne yëf yi ñu lay jox yaa ko moom sa yëf la jël di la ko joxaat di la ci mosal mbokk yi ma yemale fii vidéo bi ndax euh, sax man asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu